ñi ñëw ci discours bi nga xamanteni ngañ Demba Touré yëkëti nako lu tolli république du Sénégal mu jawlé ko tay république de passef nee on a qu'à placer tous les éléments de passef dans tous les postes de responsabilité et dégager toute personne bo xamanteni bokku bokkul ci projet bi et on assume. wa mais loolu c'est parce que dañ ko def ba noppi.

ñu seeti nitu Pastef yi benn par benn quitte à ce que nous dépouiller administration bi dem police dindi alkaati yi nga ni yëpp nous ak ñoom ñu indi ay nit ñu mësul nekk sommes def leen dem à l'extrême image bu mel noonu parce que ñoom loolu ngay dem donc moom daf ko avouer simplement mais nous loolu ñu mës a def xoolal li nga ni quand on parle, par exemple, de, de, de, de la nomination de, de Kilifeu et de l'autre, ouais. mais ça traduit ça. jële fi ñii nga xam andu ñu ak ñun jël ñi nga xam ne lañu andal. Soko àndal nak duggal ko ci yenn administration yi fay lever le camp des complices ñi nga xam ne ñoo leen nekkaloon ci biir administration yi ñu nak ñoy feeñ et boo remarqué mhm. so xolé administration sénégalaise tay ñi mu tëddee mhm. mais ñi àndoon ak Pastef rek ñoo feeñ parce que au au minimum so démé ci ben bureau ki fa yor mobilette sax soko ko laajee Pastef la bokkoon mais le cas de Fadilou Keita Fadilou Keïta oui. le cas de Cheikh Diba feeñ na le cas de qui remplaçait Abdoulaye Diouf Sall feeñ mais feeñ c'est ça le cas du ministre de la jeunesse et des sports Khady Diène Gaye. feeñ mais loolu la loolu moo fi nekk le cas de tout le monde. tout le monde il faut y en a beaucoup aussi. Il y en a beaucoup il y en a beaucoup jusqu'au jusqu'au Mani Fretin. toujours ce sont les adjoints qui vont monter au poste de directeur. c'est c' ça C'est est c' est loolu mooy mooy loolu li nga xam daf fi nekk. donc euh, l' autre daf ko daf ko osé rek ngañ dem daf ko osé rek wax ci ko mais ñoom loolu la ñuy def te dama lay wax lenn encore sañu ñu ko ñàkk a def sañu ñu ko ñàkk a def ku nekk si ñoom c'est des actionnaires tu as remarqué quand on dit que le ministre de l'industrie famille yëpp ñoo nekk ci cabinet du ñoo fa nekk ba est-ce que dinañ leen malgré que scandale Kenen keneen ak euh, le ministre des affaires étrangères Yacine Fall waaw Yacine Fall sa fille loolu wax jooju jeex na maa tey lan koy def sañu ko nekk def c'est des actionnaires et lu gën a salté ci këfin bi suñ ne des actionnaires dama lay wax ni la bàyyi ci xel fekke la yëg jëf ànd jëf fekkee yëg jëf ànd loolu mooy li nga xam ne moom la nit ñi tëye ku ci nekk li nga téye daf la jox droit ci nga revendiquer dara moo tax yi mënulul dara Sonko Sonko mënul tere ñii d'accord ku fekke rek di nga jot d'accord